ñu ngi gërëm monsieur Ousseynou Diouf ndax li muy jox nii maanaam dafa ñëw ci waxtu bi mu parce que ak euh, pandémie bi ne ci Sénégal wax dëgg yàlla lii mu ñu jox daanaka moom la ñuy fagaroo parce que thermoflash bi di ngay yaramu euh, degré tàngaay yaramu dom aadama bi jàkkaarloog yow comme ça dina la gindi ci lu bari masque yi tamit dégg ngeen ni ñu ko waxee nee ku nay nay sol masque pour protéger boppam di protéger ki mu jàkkaar lool kon nag lii mu def macha allah ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yokk wërsëgam parce que lii mu def defal nañu ko poste de santé mais defal na ko population rendu leen tamit ñu ngi koy gërëm di ko sant ci turu poste de santé bi turu comité de santé bi ak turu population rendu leen yëpp ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla parce que lii moom lu ñu soxla la ñu indil daal li mu ñëw li mu indi daal ñëw ci heure bi mu war a ñëw yàgg nañ ko bëgg te it jàppandiwul woon xëy na tey bu jàppandee vraiment dina loo xam te dinañu dimbali bu baax a baax a baax a baax ci suñu lutte contre la la euh, le Covid 19. ndax malade bu dikkee da nga war a d'abord sàmm ak euh, mesures yi nga xam te ñu ngi koy wax ci rajo bi ci télé bi yëpp te li ci jiitu mooy d'abord distanciation bi. donc su fekkee camouflage bi dikk ne dinañu dimbali parce que di nga mën a xool malade bi testé ko de loin pour xool si y a une fièvre ou pas donc duñ def lu dul di ci bëgg di ci sant tamit di gërëm ci sama tur. may sant di gërëm ci turu tamit hôpital bi ñu fi nekk ñëpp di fi liggéey ndax xëy na kàddu gi maa yore moo tax ma war a wax ci seen kàddu mais en tout cas ci sama tur hôpital bi yëpp ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax a baax a baax di leen ci wax jërë ngeen jëf. tournée bi lu ko waral du lenn lu dul vraiment assister les postes de santé yi nekk euh, au niveau des quartiers en matériel de de de thermoflash et de masque. pour que nous am mun am jumtuwaay yi nga xamné ne dinañ ko mëna jëfëndiko pour euh, fièvre bi di Covid 19. pour assister la population jox leen ay masques toujours dans le cadre ci la corona ñu ñaan yalla yalla musul ñu ci ah, ñu respecter les mesures barrières vraiment samonte ak tegtalu ministère de la santé pour fièvre bi mun fay juk di wax nak duñu yëm ci geste bi dinañ continuer encore avec des gels ak euh, euh, des gants. Je me itam encore ci poste de santé Nous ndax nous relais par rapport au euh, comité de pilotage Le poste de santé vraiment nous bu fekkee am nañ matériel pour anticiper par rapport à l'action action et puis alerter le comité de pilotage et de suivi. Nous respecter les mesures barrières vraiment tel ak tel ministère de la santé pour faire ce mun fay